ab fenn ngay euh, liggéeyee ñu jox la comme DG AGR ak ñoomi seen nga yem ci li nga xam ne ni moo di sa liggéey dañu seetlu ne politicien tey jii ku ñu jox nga xam ne ni moo di euh, DG boo doon dépense euh, cent mille deux cent mille ngay dépense xew bu am yaa nga fa di pasar pasar di may ñu loo xam ne nii c'est di n'importe quoi alors que ñu bëri su li ñu soxla yow taxawoo ci lolé res ex ce taxul tay ji ni état bu tok di len di euh, bundu xatal di len di def euh, le maximum ba li nga xamné ni moom la ñu yóbboon Ndakaaru génne. waaye bii mënu ko. Hmm. état bi mënu ko. kii lu war alal askan bi. Hmm. gis nga dama lay wax ne même bu ci di damay ñëwati rek comme Pastef da bari imam ak oustaz <laughs> même bu ci diiné hmm tay alalu réew buñ bu ko doon wër ñu àtte ci diine waa Pastef mënuñu wër. ñépp nag Pastef kaw ba ci suuf munu ñëw ñëw ne kiw mi sàcc la l'islam tenir ci ñoom compte ba jàpp diw moom xam nga lu tax dañoo man a fen képp la nag te li may wax borom xam-xam yaa ngi may dégg us ñi firi xaafisul alxuraan yaa ngi may dégg gis nga soo ñëwee nga ne man ma ñëw ma ne Aysatu Jóob Faal mii kat jël na nangam ñu xool ko muy ay fen xam nga moom leer na ne boobu ay fen la suñu su ma ñëwaatee ne diw jël na man la ñuy duma donte diw jël na te man wóor ma jël na mais man samay wax moo amatul crédibilité ci ci tuuma ju jëm ci nit parce que da ngaa fen bañ jàpp la ci biir moom ñoom fi ne ay rapport moom dañ cee yàgg fen ñu baal fen moom fen rek la ay rapport dañ cee yàgg wax lu dul dëgg mooy benn dañoo yàgg tuuma nit lu dëgg dañoo yàgg dem sosal nit lu dul dëgg yàgg nañ koo def ba ñëpp xamee leen ko kon ñoom buñ doon woo ci diine ñoom alalu askan wi mënuñu koo wër léegi nag dana ma jaaxal trop ñu ñëw man maa seede waatal man tamit même justice bii ñuy àtte woo ñu ñëw seedeel ma ñoom ay mu génne ci seen làmmiñ ak ñi ñu nomi man magistrat yi ñu nomi sax dèjà wóoluwuma leen. ah bon xamuluma leen dara nag waaye dama leen wóoluwut. Mhm. xam nga confiance moom ku ne doo ko forcer kenn wóoluma moom kenn du ko forcer nit wóoluma kenn mënu ko forcer nit wóoluwuma leen xam nga dafa wóoluwuma leen xam naa ne ñu jàng lañ ñoom xam-xam lañ waaye jomaa yi leen nome képp loolu doo nga tax wóoluwuma leen de. leen jomaay parce que jomaay laa wóoluwul leen voilà. Hmm. ku sa kilifa wóoluwu la man la loo kese la. fii ba fi jomaay di jóge ku fi tëj dama naan dalaa ëpp doole dalaa jaay doole ndax loolu laa gëm man dama gëm li ma hmm. bi mu ñëwee ne woon day génne loxo bi ci justice dama ne ak saa loolu de xéewal la fii nii laa ko waxee woon. Hmm. ma ne leen Bassirou Diomaye Faye bu génne loxoom justice waa Pastef ci kaso bi lañ jëm. ndax jubuñu bala ci génne loxoom na leen woo. waxtaan nañ dem ci vidéo bi dama ne man bu doon maay Bassirou Diomaye fay bala maa génne sama loxo justice bi naa dajal benn waa Pastef gépp ñu toog ma ne leen maintenant dañ maa fal démissionné naa ci parti bi donte dañ koo dàq sax démissionné naa na ngeen xam ne président de tous les sénégalais la sénégalais yëpp maa leen yilif yéen waa Pastef ak waa APR ak waa réew mi ñëpp maa leen jiite mhm. duma far kenn nag. bis nekk tey sama loxo dama koy dindi ci justice bi justice day indépendant ku mu jàpp nag sama yoon newu ci ku mu bàyyi sama yoon newu ci bàyyi boo ngeen jubal wax leen ko sévèrement hmm. loolu laa ko digaloon de mais defu ko hmm. daa ñëw naan mais c'est que euh, ku nu mu conseil supérieur ñenn ñi nee nañ man hmm. bu ma génn c'est man dugguma jënduma booba mooyu ma discours bi ma ko seetaan mhm. maa ngi toog ci benn télé ñu invité waa Pastef ñuy bëgg a démarrer ñu nañ xaar disque brisé ba mu ne duguma génn ma man la ma ci teg sax mënu ma koo wax gàcce gi ma àndal mhm, yaa xaar beneen réponse non li ma leen compte keroog li ma doon diglu mooy daneen danaan sama loxo man dama koy seppi justice bi man réew mi laay occupé justice na demal boppam billaahi bu ko waxoon maa ngi nekk premier militant mhm. bu ko waxoon jëfe ko wane na man président laa dañ maa fal Sénégal yëpp laa yemale boobu man boobaa kon Bassirou Diomaye Faye dina am dina am militant boo xam ne danaan di ba àdduna tukkee ba léegi musuma am ku mel nii ku ma man a xeexale nii waaye nag foofu la yàqee moom foofu la foiree wis bi foofu laa ne ah kii du waaja man aw ma aw ma woon habitude sax di contre président mhm. ŋaañi président aw bi mhm. mais damaa xam ne lii moom lii ñu yor moom kenn xamul lu mu doon <laughs> soppiwul taxawaayam taxawul taxawaay président nañ waxante dëgg président ne fonk kàddoom fonk ay dëkkëreem fonk taxi ak loi yi ASER a ngi nii li mu fi def nu mu tudd te xamul li la États-Unis bi ñuy bàkkoo ci démocratie kenn da ko faa ñemee def kenn kenn da koo taxi yi nekk nii ñu falal falal Fatim ci nga yow nga jël ne déedéet duma damai ko fal ci li damay dem for ben kumba puy do ñew fal ko moma neex ha ah, di dinañ ak yow pexé de nga abal leen. Hmm. motax senegal euh, Sénégal dugg nañ ci giraawaale rek soxna ci duggu nañ ci giraawaale waye lu ciow li reey reey buñ faté ah, Abbas Fall bu ko kenn faté xaalis bi. bu ko kenn faté <laughs> Abbas ñor na la. waaw ñor na man ñor na Sénégalais yëpp parce que heure bi école yi bari na ay créntin ay mhm. sàkket a fa ne yenn école yi la yàlla xam doy na mhm. kon nag Abass mhm. ana xaalis bi <laughs> xëy ko bu leen déggee dina génn <laughs> de moom bi ma <laughs> génnee ma déggee génn la Oumy woyofal xam naa dinaa jot ci moom moom laa jeexale waaye Abass daal en fait dafa ana xaalis bi si si ah man xam nga man arbitre la man ne ko contre man xoolal contre ma man <laughs> lu àdduna nag neex neex man du ma fen ah. man mën nañ ma jàpp ci lu ne mais man du ma fen du ma sosal nit du ma waxal nit ki lu mu wóorul hmm. bi ñu fale Macky sàll bi mu wàccee hmm. damaa dem